cali combat jine la le diggante pap Demba bu jifer ak Franc bu jor Franc mom moy bërëm ngey bu lu weex li pap Demba mom lañu jàkkaarloo le 18 juillet 2023 à palmarengue Nguéj Abou Assef dëkk docteur viro Sarr dëkk suñu père Amboura Sarr lii combat bu tay war la war don doon jifer ak ak jor ak Demba Djifer moom lañ jàkkaarloon Demba baa ngi noonu Abdou Koumba Amou Dieng Birama Jetli Père Bos Diwane Mamadou bu Ñoojoor waaye sama copain Sadio bu Ñoojoor bëgg naa ko ndeysaan di bëgg waa Ñoojoor waa Jonwaar Ba Demba bu leen fàtte xawaare am fi del ak lu mu taw taw taw Faran jor ak Pa Demba bu Jifeer acha sama ringo borom si moo jeet bëgg na la de ak Moussa Mbodj ay Faran japp na tank Pa Demba attention Faran Pa Demba Moussa Mbodj le policier eh, borom jaagaan barka Pa Demba Faran la ilaha illallah kenn daanoogul de Ahmed Balancé Niang borom kër mama ale laan ban nana noram te njoon ne ba jufatu ko xaye ko faap manoona ayu sandet na mbalka maak jeeno saafaande o jem gandun doomu ndey Edouard dimle jox o yal soal waaw waaw Arona Diène le grand champion waaye poli koni wayi Paulsen Pa Demba Franc attention Pa Demba Franc Pa Demba Franc koy mbot Franc koy mbot ehe eh, Franc mbot na Pa Demba la ilaha illallah Franc mbot na Pa Demba wala lu arbitre wax arbitre nee na arbitre arbitre sifflé waat na combat ba Franc dawaat na dañuy bërewaat Franc Pa Demba Franc Franc jor ba Demba Djifer encore eh, eh, ñu ngay bëre bëre suuf eh Franc daanaat na ko ànd ko Franc daanaat na ko mboot na ko de